leen waa presse bi man la Abdou Samad Joxaane bokk ci Pastef Dakar doon coordonnateur Pastef Fann Point Amitié ginnaaw bi ñu leen sante yéen waa taskatu xibaar yi ci seen teewaay di leen fàttali nit seen liggéey bu baax bi ngeen di liggéey bu leen si kenn défi te bu kenn jéem a boole kenn ci li ñuy def ci réseaux sociaux yi di créer ay compte yu bon di ko askanale opposition bi ngir jéemee jaxase ñu ak yéen ndax li leen ñor muy réew mi moo ñu ñor li leen ñor mooy équilibre bi moo ñu ñor ci loolu dañ leen di xamal ne lundi ba la génn fukk ak juróom-ñeenti xale dëkk Ndakaaru ak juróom-ñett fële ca Bignona état Sénégal dañ dañ leen séquestré jàpp leen ci lu tegul ci yoon xañ leen seeni àq ak bu weesoo dimanche bi weesu coordinateur Pastef Dakar suñu jigéen Fatim Mbengue bi ngir yóbbu ay ay yére ak xale yi nga xam ne leen fa téye dig fekk leen fa jël leen ci doole yóbbu leen téye leen bés te waxuñu leen li tax ñu téye leen fa ginnaaw loolu ñu bàyyi soxna Fatou waaye Abbas Fall di coordinateur Pastef Dakar bokk ci copil ba tey mu ngi ñu téye foofu téye boobu nag teguwul ci leen da waxuñu ko lu tax ñu téye ko démb ñun ñëpp gisanoon nañu soxna Birame Souley Diop di administrateur parti Pastef doon liggéeyi bàyyi njabootam bokkul Pastef politikul ñu fekk ko fi muy liggéey noot ko jaay ko doole yóbbu ko di boobu ba tey mu nga foofu dem ba tey ñu xañ ko njabootam yore njaboot ju sew ñu ne ko doo fi jóge te waxuñu ko lu tax ñu loolu nag xoxotal la xoxotal boobu nag newul lu bees fii depuis bi ma fi Macky Sall nekkee 2012 ba tey ndax moo fi toog ne képp ku jàmbaar la moom am xalaat bu wuteeg moom dana fexe ba dootoo waxati loolu nag mu ngi koy doxe di xamal askan wi ne doxal boobu su antoo jëm ci opposition su ci noppee ci presse bi la jëm mooy tubaab bi naan musulman ndax moom jàpp na ne xalaatam ba karafet gis-gisam ba karafet mu jot nag ñu artu kilifa yi di artu mootaayu droit de l'homme yi ñi xeex ak ak yelleef nit ñi ñu wax ci di artu ñi nga xam ne ñoo fekk nekk ci bitim réew ñu wax ci ndax tat ku artuwul di nga artu ndaxte li ñuy ñaan Macky Sall ak programme bi nga xam ne néew fi lu dul bëgg-bëgg président Macky lay doxe te bëgg-bëgg askan yi nga tax ñu koy fay doxewu ko jëfewu ndax gannaaw bi ñu jéemee teg ñaawteef di diaboliser président Ousmane Sonko nga xam ne depuis deux mille di 17 ba tey ñu ngi ci ñu jël lu ñàkk fayda jéem ko koo takkal dem ba ci biir ñu ñëpp ñu seetlu ko bés bu ne ñu wane ne takkal boobu ab nar rek la ak sos kese lépp di wàcc lépp di daanu ña ko naroon ñu bàyyi leen ñuy dox ña ko doon jéem ñu bàyyi leen ñuy dox ka jël xale bu jigéen ko di Sidi Mouhamed Mbaye di jarbaat ci Maodo Malick Mbaye bokk APR bokk Benno Bokk Yaakaar ak médecin bi nga xam ne moom la àndaloon ak avocat bi nga xam ne moo bindoon loolu ba tey jii nii kenn terewu leen ñuy dox kenn dégluwu leen ci mbir mi ñu jom xam xamuñu nu ñuy def xëy na dañuy dem assemblée xëy na dañuy def assemblée ne ko yëkkatil mbalaanu kiir laay ki nga xam ne x la mooy ku ñu xamul ba pare wax ci suuf ne Ousmane Sonko loolu yëpp di ay di ay naxa sa xandan di ay yëfu yoo xam ne wax ku daal nga xam taxaw kon ña ñu waroon topp xam nañ leen waaye jéemuñu ko ñu xam ne loolu askan wi xam nañu ndax askan wi seen xel seen gis-gis ci réew mi léegi ñëpp la leer ñu xam ne loolu taxawul ñu ne ko nañu soppi loolu jéem wut ay pexe nan dañuy jéem a daaneel lii dañuy jéem a insurrection dañuy jéem a kii te ci constitution Sénégal dafa ne ku ne ci ñun am nga droit mobiliser wu ku ne ci ñun am nga droit résister suñu ne tegee loo xam ne attanoo kon ñi ñi woowaat réew mi di woowaat ndaw Pastef les patriotes di exiger ñu bàyyi xale yooyu ñi bàyyi suñu coordinateur Abass Fall ndax fa mu ne du place am fa mu ne mooy xamal askan wi réew mi naka lañ koy war a yore ñu bàyyi soxna jàmbur bi nga xam ne njabootam soxla nañ ko ñu ngi exiger justice bi procureur Bassirou Gueye ñu ngi koy exiger mu bàyyi leen te di woo ñëpp ñu taxaw jonn nekk benn say ngir xeex li nga xam ne du yoon te teguñu ko fenn te ñu taxaw wane suñu bopp. Pastef Dakar ak FRAPP Dakar ñu ngi wootewaat di artuwaat ndax fa ñu jëm fa ñu jëm du neex wasalaam. emprisonné injustement le régime liberticide de Macky Sall procède à des arrestations arbitraires ce qu'on peut une chasse à l'homme C'est pourquoi des nouvelles arrestations ont été faites, dont celle de Abbas Fall, coordonnateur de PASTEF Dakar, membre du COPIL. Il a été arrêté devant la prison de Cap Manuel, accompagné de notre sœur Fatima Beng, membre de FRAP. Ils étaient là pour aller assister les prisonniers, les otages, leur amenant de quoi se nourrir et de se vêtir. Ils ont été arrêtés, manu militari, envoyés dans les locaux de la DIC et ils ont subi des interrogatoires. L'épouse de Biram Soleil Diop a été arrêtée dans son lieu de travail. Alors qu'elle n'est pas militante, de PASTEF, elle est citoyenne sénégalaise mais son seul tort, c'est d'être la femme d'un responsable d'un parti politique qui a le courage de s'opposer face à ce régime qui expolie nos ressources naturelles et aussi qui continue de fouler aux pieds nos droits les plus élémentaires. L'État du Sénégal n'a jusqu'ici aucun argument pour justifier ces arrestations arbitraires. Et nous savons que tout ceci, c'est grâce à la complicité du procureur de la République, pardon, du procureur de l'APR, parce qu'il a troqué son toge avec le toge marron beige de l'APR. Serigne Bassirou Gueye doit arrêter parce qu'il est payé par nos deniers publics et par nos impôts. il ne doit pas avaliser un complot ourdi au sommet de l'État. Pourquoi aujourd'hui les militants de PASTEF sont traqués? Le domicile de Ousmane Sonko, leader de PASTEF, est en siège au moment où les commanditaires de ce complot votent librement à leurs occupations. On peut se poser des questions parce que des gens ont été cités dans cette affaire. Qui cache Sidi Ahmed Mbaye Qui cache Adjassar Est-ce que Sidi Ahmed Mbaye est un intouchable Parce que c'est le neveu d'un membre de l'APR, Modo Malik Mbaye, proche collaborateur du président Macky Sall. Un docteur a été cité. Une avocate a été citée. Jusqu'à présent, ces deux personnes n'ont pas été interrogées par les services de la gendarmerie ou bien du procureur. Rappelez-vous quand il s'agissait de l'affaire Dame Amar et compagnie le policier qui a été cité a été entendu bien que il disposait d'une autorisation de circuler mais il avait facilité à des personnes de violer le couvre-feu pourquoi aujourd'hui ce policier a été emprisonné et que des qui ont été les commanditaires de ce complot toujours restent dans la nature nous n'allons pas accepter après l'effritement de ce complot odieux et scandaleux que des gens puissent être protégés pour simplement désigner un X pour lever l'immunité parlementaire d'un député Ousmane Sonko. C'est pourquoi nous appelons le président Macky Sall, nous appelons les autorités, les chefs religieux à prendre cette question au sérieux. Ku artuwul di nga Nous avons la vérité avec nous. Nous n'avons pas peur. Mais nous allons défendre bec avec ongle d'or nos droits et aussi nous allons nous ériger en bouclier contre toute tentative de vouloir s'approcher de Ousmane Sonko. Passez les patriotes. Frappe France dégage. Et les forces vives. Appelle tous les militants. Appelle tous les Sénégalais épris de justice à attendre décisions émanant des directives émanantes des structures et les mots d'ordre pour pouvoir donner des stratégies à résister face à cette oppression. Je vous remercie.